dëkk Kumba am nday la ak Kumba amul ndax li ma dégg ñu la ko yàq yëpp dañ laa jurul buñ la juróon yërëm la ah doomu aadama de boo ko juree li nga ko yaram sonn nga. Ah. xeex bi ah, xeex bi dangay ñaan yàlla mu jeex nag ndax bu jeexul <laughs> yaa ci dee. <laughs> xeex bi ñaanal yàlla mu jeex rek. non <laughs> billaahi Pawlish ndax ak maa gën a daw. yow daal sa jë toj na. billaahi sama yaram sa yaram yëpp yaaxu na. billaahi wallaahi taalaay. te yow da ngaa xiiboon oh oh ay waay maasakat ba yëkkati na ko moo yow yaa ngi mel ni <laughs> ay yow ay yow. sa massage ah Mbaye et oh vraiment Pawlish def na luñ ko xeebee sëñ Mbaye mi yaxam yi ku ko jàpp. ni daal koo kurfañu ruq-ruqee ko ba mu mooq ay waaye Pawlish doole doxul jàmm de waaye gàcce tam am nga ko de kii de nekk na ci diggante du ak de nii su ma paree waa billaah su paree xam ni ala hmm. su ma paree xam ni Pawlish du dara du dóor hmm. oh yaram yëpp doon métti li tax dootul lan nga bëgg bay lan tax sama yaram yëpp doon métti fi nekk nii